loolee tamit ci sëñ bi ci dafa am ñaari fan ba ci ñetti fan am na koo xamante ne kii dafa am faru rab faru rab ak coro rab bokkut ñaar yëpp am nañ ci ak secret dañ koy dindi ci kàttun yàlla. asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm. tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xamante ni si ñooy topp suñuy vidéo di leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey kontaan ci yéen gis nañ appel yi encouragement yi et tout ñi ngi kontaan ci yéen bu baax a baax di leen rappeler toujours que numéro bii ngeen di gis muy affiché nii ci suuf mooy suñ numéro service commercial képp ku am loo bëgg publicité wala nga am histoire boo dund nga bëggoon ko partager ak nit ñi incha allah boo ñu contacter dinañ waxtaan ak yow alors tey waa Lu Xew TV ñoo dikkaat di leen indil beneen vidéo mu doon vidéo bu doy waar mu doon loo xam te ne suñu benn sœur moo ko dund franchement mu nekk lu metti donc toujours dañuy jël exemple ci li nga xam ni moom la rak yi dund ci série maîtresse d'un homme marié que moom bi muy nekk xale dañ ko sàkku woon alors audio bii ñu leen di waaj a tegal c'est la même chose donc ñu ngi ñaan benn mbir képp koo xam ne seetaan nga vidéo ba pare conseil boo ci mënti am nga def ko ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci whatsapp donc tey rôle boobu nga xam te ni si Racky mi ngi koy joué ci série maîtresse de homme marié dañu gis ni bëri na ñu koy dund ci société bi am na ñoo xam te ni xëy na ñi ngi koy wax mais am na ñoo xam te ni mënuñu ko wax te su ngeen dégloo soxna si di waaj a wax di ngeen comprendre bu baax fi ñuy waxee alors voix bi dañ koy modifier parce que bëgguñu ñu xàmme baatam mais li muy wax di ngeen ko dégg te di ngeen comprendre li muy wax ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xam te ni moom la soxna si dund ñu dikkaat continuer waxtaan bi. asalaamaaleykum waaw man maa commenté woon démb ci série bi ci waaw ci série maîtresse d'un homme marié lu rakk di dund foofu noonu dafa nekk nag lu ma naxari lool naxari na ma lool ba ma nekkee xale ma am sept ci laa am problème boobu noonu sama papa gaañu génn àdduna bàyyi ñu man ak sama yaay ak sama ñetti mag yu góor sama papa nag ba mu ba ñu ko tey moom sama mag moom tamit mu gaañu ñu suul ko suba noonu exemple bi daal noonu la sama mag sama dafa gaañu te ñu suul ko suba sama mag tamit gaañu ñu suul ko ginnaaw suba waaw léegi na mu des ñun ñett sama taaw yaay ak sama mag nga xamante ne moo namp jox ma xamante ne moo ma moom moo gaañu léegi sama taaw yaay bi moom situation sonal na ko lool ba mu génn dem euh, Gàmbi léegi mu ak sama mag lool. sama yaay moom kooku noonu suñu cousin boobu noonu sama papa moo po jox papa mu nekk ñoo bokk ndey ak baay léegi suñu cousin boobu noonu moo ñu daan yar di ñu maltraité du ñu def lu ne mu naqari ni sama yaay loolu te munu ci dara te moom bu ci daan wax ñu naa moom waaw jurut ko moo tax bëggut moom mu yar ñu mu naqari sama yaay naqari ñu te sama yaay su daan dem génn feneen sama mag tamit su génnee mu sàkku ma boobu maa ngi woon sept ans mu nakar ñu lool nekk ci situation bu métti sax man nag bi ma nekkoon xale boobu daan woon déranger ndax maa ngi woon sama yaay ak sama yeneeni xarit su may waxtaan ak ñoom dara du ma déranger dem na nag ba léegi man maa ngi vingt cinq ans affaire bi daf may ñëwaat daf may déranger su ma nekkee ci classe su ma nekkee fu ne après su ñëwaatee damay lox di jooy du xam naka lay def sonn naa ci nag lool mu sonal ma lool nag nii nii nii maa ngi ci benn psychologue fu ñu ma benn hôpital foofu laa ñëw nii pour xool naka lay def pour mu mën a fàtte yooyu noonu xam naa ne nag du yomb du yomb waay nag maa ngi ciy jéem bu baax nag a bi sonal na ma instant yi may wax ak yéen sonal na ma lool sonal na ma saa yu ma toog gisuma dara luy tax ba loolu du ñëwaat ci sama xel te saa yu ñëwee rek damay jooy di lox du ma xam naka laay def su ma nekkee si classe damay jooy su ma nekkee fu ne jooy daf ma sonal a sonal sonal ba nag xaw naka laay def te man dama ko préféré woon sax bàyyi ko ci sama xel ma ko wax sama benn famille waa def de famille ma ko wax kenn waaye lii moom il faut ma waxee ko ndax li ma koy téye ci sama xol bi noonu la may gën di gaañee donc il faut ma waxee ko ma jéem ci xool benn solution xool ba xam ndax dama ci mën ba léegi ni may wax ak yéen sama mag xamu ci dara sama yaay xamu ci dara kenn ci ñun xamu ci dara nakar na ma lool nag saa yu ñëwaatee damay bëgg a woo sama mag wax ko waaye beneen xel ñëw mu ne déedéet lii soo ko waxee si biir dëkk bi si biir kër gi si boppam euh, kooku noonu dinañ ko xoolee beneen bët te loolu nag rafetul nga affaire de famille te kooku noonu si dëkk bi léegi kilifa la daf day jiite ñi ñi ñuy julli loolu noonu suñ ko yëgee tey ñoo ñu daan jiite ñuy julli dina metti lool ci moom mënuma xam naka laay def mu ne ni jaaxale naa trop bëgg naa ngeen dimbale ma ci ci xool ba xam ndax ñun di ngeen ci ma am benn idée bi nga xamante ne di ngeen ma ci mën a jàppale mu mën koo fàtte jaaxle naa trop. donc mbokk yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo histoire bu daw yaram histoire bu métti mu doon loo xamante ne comme ni mu ko waxee bi mu nekkee xale am sept ba léegi mi ngi ko téye mënu ko génnee ba instant yi ñu toll mi ngi am vingt cinq ans sept ans ba vingt cinq ans dix huit ans de souffrance chaque jour ko jëfee nga yewwaale ak benn métit boo xam te si sa biir xol la nekk mu noo ko génne noo ko partager parce que tey ki la ko teg sa mbokk la te boo waxee tas mbokk bëri na ñu koy dund amuñu kuñ ko wax li ñu mën mooy foo leen fekk ñu ngi tëdd di jooy te loolu nit mënu ci dëkk ñu dégluwaat benn parti ci li nga xam ni moom la soxna si wax te dikaat continuer waxtaan bi lii nag dafa nekkoon ci sama xol yàgg na xalaatuma ko woon waxee ko tamit waaye nag comme li ma déggul woon si euh, beneen jigéen bi ni mu koy waxee mu ne lu ëpp tuuru loolu moo ma dal nag xalaatuma ko woon waxee xoolal depuis deux euh, depuis ba ma amee sept ba léegi mosuma ko waxee fenn waaye nag fii moom sës surtout man fi mu jeexale laay yëkkatee mu ni li nga xam ni loolu la dund saay bu ñëwee ci xelam daf koy sonal trop surtout bu nekkee moom kese amul kum waxtaanal donc man foofu noonu li ma fay dégg mooy. su fekkente ni nekk na ak keneen di waxtaan ak moom dina xaw a tane donc dina am lu bëri lu ko wàññi loolu moo tax ma leen di wax que ni partage dafa doon lu am solo di waxtaan ak nit dafa doon lu am solo mais am na ñoo xam te ni dañoo renfermé wu trop ci seen bopp. du ñu nangoo partager seen problème ak kenn du ñu nangoo waxtaan ak kenn ci dara te loolu baaxul parce que le fait que nga koy denc ci yow da lay gën di ronger di la gën a sonal alors de grâce. quoi qu'il en soit ak lu leen mën a dal xool leen ku leen gën a jige ku ngeen am ci moom yaakaar ngeen mën a ak moom seen situation parce que tey jii nii bu ngeen ko defee rek dina wàññi lu bëri ci yéen même donte bu leen mënta faj à cent pour cent lu bëri ci yéen dina ko wàññ bu ñu continuer toujours ci histoire bi nga xam te ne si moo dal soxna si imagine leen ki nga xam ne si moom moo ko def il y a de cela dix-huit ans bi mu koy def xalaatul woon ni que ni ëllëg dina nekk dara ci dëkk te tey comme ni ko soxna si waxee dëkk ba mu nekk moom moo leen di jiite moo tax nit ki lépp looy def ci àdduna war nga xalaat ëllëg parce que bu ñu jëlee exemple ci li nga xam ne moo dal soxna si te comme ni mu ko waxee loolu bu feeñoon tey ñi nga xam ne si moom la doon jiite dootuñu ko wóolu dëkk bi kenn dootu ko wóolu deram dina yàqu dootu fa jarati dara te lan moo ko teg erreur yi nga xam moom la defoon ci passé looloo waral mag ñi naan ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la wax boobu nag képp ku ko bàyyi xel boo naree def lu ñaaw di nga ci génnaat xam ni ëllëg day am te nit ki booy def dara mu leen li ngay def nii bëggoo ku la ci fekk bàyyi ko te xam ne du lu baax looy def nag te bañoo ku la ca fekk jàppal bu mu dëgër xam ne lu baax a ngoog alors mbokk yi tey histoire boobu lañ la indiloon mu doon loo xam ni franchement lu métti la ñun ñëpp ñu ngi koy naqarlu histoire bi nag buñ ko partagé c'est parce que dañ soxla avis ñëpp parce que ku toll situation bu mel nii li nga gën a soxla mooy ay conseil alors képp ku am conseil boo mën a joxe nga defal ñu ko ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci sunu whatsapp di dellu encore une fois di tuub di jégaluwaat bu baax a baax di leen jox di daje ci beneen vidéo Merci à tout le